ñetteelu xaaj bi ci juróomi xaaj yi ganaaw loolu musaa delluwaat ci kaw tund wi yàlla joxaat ko yeneen ñaari àlluwa yu def fukki ndigal yi yàlla jox na nit ñi fukki ndigal yi ngir ñu xam li mu bëgg ci ñoom yàlla dafa mat moo tax ndigalam yi dañu mat itam boo moyee lenn ci ndigal yi mooy nga ndigal yépp yàlla xamoon na ne nit matul kon du mën a matal ndigal yi léegi ma laaj leen ñeent ndax mën ngeen lim fukki ndigal yi yàlla yi benn bul am yeneen yàlla judul man ñaar bul def benn xërëm ngir jaamu ko ñett bul tudd turu yàlla cig neen ñeent nanga nga noppalu ci bësu noflaay bi def ko bës bu sell juróom fonkal sa ndey ak sa baay juróom benn bul boom juróom ñaar bul njaaloo juróom ñett bul sàcc juróom ñeent bul seede lu dul dëgg fukk bul xemem sa alalu moroom juróom lu tax yàlla wàccee fukki ndigal yi yàlla wàccee na fukki ndigal yi ngir won nit ñi li mu bëgg ci ñoom ndigal yi dañuy wone itam ne mënuñu def lépp li yàlla bëgg ndigali yàlla yi ñoo ñuy won ne lañu juróom ndax mën nañu mucc suñu toppee fukki ndigal yi waaw su fekkee mën nañu topp fukki ndigal yi bés bu nekk waaye nit moom bàkkaarkat la mënul topp ndigal yépp